yaa ngi si jàmm oui maa ngi sant yàlla bu wér. <laughs> alhamdulilah naka la ak ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah na ngeen def ak coono. alhamdulilah jaageen jëf waay. kon ñu dem ci actualité eh nii avec plaisir. waaw donc euh, li ñu war a wax dafa bëri ah. Mhm. donc euh, Walf Quotidien mel ni moom daal di nay euh, biral ci xëtam gu njëkk. Ah. mi Touré donc muy posé wu des questions ah, ci avenir politique am donc di xam ne que jamono ji Mimi Touré ñaari alternative la am soi mu topp ci euh, APR ah, ci mhm. ginnaaw ki nga xamante ni moo di Macky Sall pour sa faire un chemin fexe rek ba ñu joxaat ko dara wala soit mu dem a jëm jël créer yëfu boppam ngir nag euh, nekk candidate à la présidentielle yi nga xamante ni moo di 2024 Euh, oui euh, c'est c'est vrai que c'est deux hypothèses qui peuvent être euh, donc retenues mais mbir mi moom mooy est-ce que donc loolu avec la personnalité qu'elle a le caractère qu'elle a mm. est-ce que Mimi Touré war na doon quelqu'un bi nga xam ne Macky Sall war na ko mën a wóolu pour espérer ni mën na assumer la continuité de Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ou même peut-être de la l'APR mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar en général je ne pense pas que euh, ça serait à mon sens man du loolu laa gis li ma gis moom mooy euh, Mimi Touré va finir justement par se départir totalement mm -hmm. et, euh, et de Benno Bokk et de l'APR et Bokk Yaakaar parce que vu son caractère vu la manière dont elle a été justement émulée mhm. au sein justement euh, euh, euh, de, de de de de cette grande coalition qu'est Benno Bokk Yaakaar mm je pense que ni dina compliqué trop pour que euh, confiance bi mën a mën a mën revenir aat entre moom ak euh, le président Macky Sall li tax ma wax loolu mooy euh, mbir yi daf fi amoon njëkkoon na fi am confiance ci moom wàccee ko premier ministre defu ko defatu ko comment dire defatu ko ministre de la République génne ko ci gouvernement bi toog pendant un certain temps waxatu ko woon dara mu pare ci loolu jëlaat ko def ko espèce ou envoyé spécial mm. après mu amaat confiance ci moom parce que sans doute euh, euh, Aminata Tall euh, jotoon na mu jóge fa mm-hmm. mu xalaat ni peut-être bu ko fa delluwaatee dina rentrer définitivement dans les rangs mm. ce qui n'a pas été du tout le cas parce que au bout d'un certain nombre de temps mm. toujours le président Macky Sall mu xalaat ni moom Mimi Touré li mu bëgg ci moom mm-hmm. forcément il ne pense pas que ni dina ko mën a am ci moom donc ci la décider définitivement mm-hmm. de l'humilier jusqu'à ce point-là humilier bi mooy lan mooy du dara lu dul ki nga xam ne euh, moom moo ko doon yàq naka su dul noonu moom la ko jë moom la ko remplacé ak Mimi bi nga xam ne elle a été euh, donc toujours toujours toujours fidèle et loyale aux côtés du du, du président de, de de la République juste à rappeler que euh, je je ne la connais pas je ne lui ai jamais serré la main. ci mmh. télévision rek laa ko mës mais juste des analyses. Mm-hmm. en tant que en tant que intellectuel en tant que Euh, nit simplement et, je pense que ni euh, il n'y pas de destin entre entre entre Mimi Touré et et Khalifa Sall ay euh, Khalifa Sall et Macky Sall même si effectivement en politique il faut jamais dire jamais il faut jamais dire jamais donc il faut s'attendre à tout il faut donc ci noonu ne sax mhm. s'attendre à tout boobee réew mi quotidien daal dina dikk ci avenir mi nga xamante ne tey ji moo war a xaar Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade donc mu mel reconfiguration du paysage politique boobee andi ay coppite bu baax a baax donc euh, réew mi quotidien di poser la question à savoir quelle place pour Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade Aliou mu mel ni problème yaa ngi soog a door nag. je crois que oui parce que fii il faut ñu wax euh, euh, lan la def ñoom ak seen avenir politique ñoom d' abord est ce que pare nañu. Mm-hmm. ñoom d' abord bu weesoo wàllum légalité. Mm-hmm. est ce que ñoom d' pare nañu. pour jàkkaarloog Macky Sall jàmmaarloog moom euh, pour le cas de Khalifa Sall ça va être euh, euh, très très très compliqué parce que encore une fois comme j'ai eu à le dire ici sur ce plateau que Khalifa Sall euh, donc déjà il, est fatigué parce que gars yi ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ dire ah, dañ rat ba mu il lui reste pas grand chose parce que faut que mu am kattanu politique et qu'il y ait une bonne majorité de ces populations là qui tournent autour de sa personne et qui puissent justement euh, euh, le soutenir dans euh, un avenir éventuellement politique. Il faudrait qu'à un moment donné que Khalifa Sall se ressaisisse bu fekkee ne loolu mën a nekk peut-être qu'il aura justement des chances et que sur le plan légal je pense qu'il est dit communément qu'il aurait le droit justement de revenir sur la scène politique et de se présenter naturellement aux mhm. prochaines élections euh, justement euh, et présidentielles et législatives mhm. entre autres municipales élections donc yooyu yëpp nag mhm. euh, mi ngi dépendre ci moom mais pour le mi ngi dépendre ci moom mais est-ce que il a les moyens aussi de le faire parce que ça Khalifa Sall n'a plus d'argent euh, euh, ñi mu xalaatoon xëy na je pense à l'international socialiste je pense que à certains euh, groupes ou certaines certaines personnes sont euh, de l'autre côté de l'Atlantique en France ñoom Anne Hidalgo et est-ce que ñoom taxaw nañu pour def ay kuréel pour jàppale ko pour a pour dooleel ko financièrement a mm. peut-être que mën na dans le cadre des élections locales mais pour ce qui serait d'une élection présidentielle wala même d'une élection législative ce serait très compliqué à moins justement de ratisser large et d'essayer de euh, euh, jouer peut-être une autre stratégie politique bleue quand quand euh, euh, Abdoulaye Wade n'avait plus d'argent et mm. que il lui fallait faire une campagne électorale de 21 jours ils avaient pris cette stratégie là est-ce que loolu tamit Khalifa Sall mënu c'est une possibilité mais est-ce que am aussi est-ce que le moral est bon chez Khalifa Sall je ne le pense pas parce que je crois que bi depuis bi mu mhm. euh, sur les plateaux partout exister mhm. politiquement et je crois que ça il ne l'a pas fait mais mhm. en général loolu euh, euh, ku koy c'est peut-être que physiquement vous très très compliqué. Pour ce qui est du cas de de de de de de Karim Wade, euh, c'est là là ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce que parce que Khalifa euh, parce que Karim Wade euh, euh, dafa am loo xam ne dañ ko dañ ko dañ ci déggoo woon. Mm-hmm. moom ak euh, le président Macky Sall. est-ce que yi umpule par rapport à son cas. mais loolu loolu mooy problème yi umpule bi boobu mooy problème parce que mooy li may doon bëgg a wax nii par rapport à ce protocole là bi nga xam ne moom moo existé ba nga xam ne moom moo tax Karim Wade génn réew mi rappelez-vous que Karim ni mu génne réew mi dafa xawoon compliqué j'ai eu à recevoir Nafissatou Diallo ici on a posé la question mais que ñoom seen bopp sax xamuñu exactement Karim Wade kañ lay ñëw parce que ñoom seen bopp xamuñu le contenu de ce protocole là parce que euh, loolu ki ko négocier quand même moom euh, euh, Euh, euh, maître Madické Niang moo ko négocié te gis ngeen bi mu ko négocié il était très très proche du président euh, Abdoulaye Wade mais gis ngeen après maître Madické Niang dafa génn mhm. dafa génn ci côté Abdoulaye Wade bàyyi ko presque une trahison pour dem du côté de Macky mhm. def élection présidentielle xaw a même ñu koy soupçonner ay accointances ay deal yi mu teg pour nekk candidat aux élections présidentielles ak le président enfin au côté du président Macky pour a n'était pas au courant de beaucoup de choses par rapport euh, aux tractations yi nga xam ne moom la Madické Niang doon def mm. mais sauf que Abdoulaye Wade comme dafa amoon confiance ci Madické Niang euh, il s'est senti un moment trahi et puis bon bah y a eu cette séparation définitive là lan moo tax ci diggante bi kooku nga xam ne moom moo négocié ce protocole là qui s'appelle Madické Niang jóg finalement ne day nekk candidat euh, alors que l'essentiel le fond xamoon nañ ko mooy le problème de Karim une euh, éventuelle euh, candidature à une élection présidentielle mhm. euh, ci mhm. est-ce que yaakaaroon ne tey ji président Macky Sall dafay tuuf ñi nga xam ne nii daf leen a tuuf. Mhm. ci ci ci ginnaaw seen liberté. seen liberté mooy Khalifa Sall ak Karim Wade. parce que à chaque fois ñoom seen génn na loo xam ne da koy loo xam ne nii ci génn gi mooy que génn goo xam ne ni dañ ko xaw a négocier mais bañ ko négocier pare ku ci nekk ñu ngi la teg ci coin rek nga dem toog jàpp sa ñaambur que tam foofu jeu politique bu Macky Sall feeñul foofu tam ci ñoom ñaar. mais xam nga euh, aussi euh, c'est vrai que ñoom ñaar ñëpp seen jeu dañ ko négocier euh, Thioro mais négociation yi ah, mm-hmm. da da da da dafa dafa jaar yoon. dafa mm-hmm. dañ dañ dañ ko mm-hmm. ah, c'est différent parce que Karim boo xoolee ni mu génnee ci dëgg bi Thioro. dafa dafa dafa pratiquement dafa génn génn kaso rek dem dugg ci avion bi benn benn benn benn benn benn kii rek la def euh, euh, euh, ci ci non yemul sax du benn détour kese la def bravo Khadija pour dem gis daje ak Serigne Moustapha donc taaw xalifa Serigne Sidi Mokhtar gis ko vite fait pour ñu waxtaan mm-hmm. et puis après mu jàll pendant ce temps là y a l'avion là jet privé Euh, euh, kiiw Qatar bi émir du Qatar bi mi ngi ko doon xaar avec euh, à ses côtés ou à l'intérieur le, le procureur général du Qatar mm. donc procureur bi ci boppam moom moo ko ñëw jël si est-ce que bu fekkoon ni jaar mbir mi jaar na yoon mm. kese kese est-ce que lu toll ni procureur Qatar dina ñëw indi avion toog di xaar à 18h30 mm-hmm. et puis à le temps que génn si kaso bi def ses formalités def ce détour là qu'on disait tout à l'heure et puis dugg ci avion bi dem yoonam depuis sax génn mënul sax génn Qatar dem sax France déplacé wu normalement on aurait l'impression que man personnellement ci li ma ci xam ak xam-xam tuuti bi ma am je pense que Karim a été victime justement de ce qu'on appelle en droit le transfèrement mhm. transfèrement nag mooy jël la ci benn kaso déplacé la ci beneen pour des raisons x y maintenant pour des mu doon pour des raisons humanitaires mhm. parce que ku nekkul kaso

ay xeex parce que dañuy xalaat aussi. parce que mooy mooy yi ñuy wax rek xam nga. ñun man dama xalaat ni Karim Wade victime de transfert ma ci kaso la nekk mais mi ngi mi ngi mais xam nga parce que euh, comme waxuñu li nekk ci biir ñun dañuy réfléchir rek xool mhm. geste yi a été accompagné par le procureur général du Qatar mhm. Mhm. procureur général du Qatar mooy équivalent ministre de la justice bu Qatar moom moo ko jël ci avion privé dugal ko Karim jàddul fenn fi mu jàdd mooy dem gis ki euh, dajeeg sëñ sëñ bu sëñ immédiatement mm. et illico presso donc au niveau de de Doha donc ça pose un problème je pense que ni ba pare beneen problème am na maintenant admettons dans l'hypothèse que Karim Wade et la possibilité de revenir au Sénégal mais bu boobaa tamit am na beneen affaire bu koy xaar parce que dégg nga gars yi di koy sànni yenn saay mhm. nan ko 138 milliards yooyu ñu ko ñu ko taxé aussi ci biir affaire la loolu bés bu bu ñëwee fii te fayu ko eh bien mun na il peut être victime de de de euh, euh, mhm. donc contrainte par du dara lu li nga xam ne danga ko waroon fay fayuloo ko bu fekkee nañ ko bind ci protocole boobu boo ñëwee boo ko fayul ça veut dire que da am possibilité par contrainte au corps da nga euh, gi am na possibilité ak wala am na possibilité mais comme yoon fii nguur gi ko moo donc am na possibilité dellawaat la ci biir kaso bi mhm. ça veut dire que bu ñu la dellawaatoon ci caméra tey bu ñëwoon ba ñu dellawaat ko ci biir kaso bi mhm. dina am problème quand même pour dem ay élection présidentielle mhm. parce que quand même différence bi ak Khalifa Sall foofu coro mooy Karim Wade am na kàttan il peut avoir des moyens pour pour dem jàkkaarloog Macky Sall jàmbaarloog moom jàmm. jàmbaarloo jàmbaarloo ak moom. waaye problème moom mooy dafa am fu ñu ko fu ñu ko fu ñu ko fu ko fu ko téye foofu est-ce que dina dina mën a dina mën a wiccaxu ba ba ba ba ba ba reyante ba loolu bañ a am est-ce que am na possibilité moom 138 milliards yooyu bu ñëwee mu génne ko teg ko. Mhm. Euh, parce que aussi Karim mun na am possibilité am xaalis parce que fi mu nekk ak ñi mu seqal la mhm. aussi. Mhm. mais est que ñooñu aussi Karim Wade dafa dafa dafa xaw a métissé tuuti nduróo naag ñoom naar la moo tax xañ na peut-être mu am ñu am yenn lien yu jege yi mhm. parce que dafa xaw a métissé nduróo naag naar et puis euh, euh, Karim la tudd xam yi ni ñuy xalaatee en général waaw mais surtout le mot Karim naar yi dañu Karim quoi ka xam nga c'est des yaakaar ni seen mbokk donc loolu rek mun na raffermir une certaine relation avec ces gens là et puis surtout que moom il a été justement ci yenn société financières def pour am xaalis est-ce que du loolu la ko Macky Sall di moytoo moo tax mu téye ko foofu ne doo mës a dugg ci dëkk bi tant que je serai parce que Macky bu naree nekk président euh, candidat je je ne pense pas que dina dina nangu Karim Wade di jàkkaarloog moom nekk candidat loolu du mën a nekk mais loolu mooy dëgg Khadija mais problème moom mooy loolu mooy dëgg mais en même quand vous voyez des gens comme ay Idrissa Seck au pouvoir et des gens qui reviennent comme ça vous voyez ce que euh, xoolal xoolal lu ko am na kii lu wax ni la euh, critique info j'aime bien seen seen seen seen kii bi wax noonu xoolal titre bi dafa ngi noonu waaw la euh, bien bravo oh. Samba de ce que vous avez fait mi ngi noonu mooy bi ñu bind géopolitique noonu ah, waaw gis nga j'aime beaucoup ce titre là qui n'est pas mal xaw ma lan ascension nekk Mara au sommet du. au sommet du minaret minaret moom mooy. ca kaw ca kaw kiiwu kiiwu jàkka jëf. Euh, soror ba ca ca ca cat ba la nekk. donc ça veut dire effectivement c'est c'est pas mal vu hein et puis y a Pop aussi qui dit il dit retour en grâce 15 euh, ans après mais retour boobu lan la xam nga ñi ku nar kuy def yi jógoo pour indi ay ñoom Karim Wade wala ay ñoom Ousmane Sonko ci ah. nguur gi pour leneen moo tax nga yeneen dil ngay teg yeneen possibilité nga mën a teg maintenant euh, je je sais pas Thioro par rapport j'aurais comme l'impression que ni ñii dootuñu nekk ci candidat quoi hmm. parce que bu fekkee ni Macky dafa bëgg a nekk candidat aux élections présidentielles te gëm naa ni Macky Sall bañ a nekk candidat en hmm. parce que Macky Sall toog di bàyyi di di non pétrole bi li ñu signé si gaz beeg yooyu gars yi loolu loolu du ko bàyyi quoi du ko bàyyi candidat yoo xam ne nii la du du saf sénégalais yi mhm. puisque Karim Wade mhm. nañ waxante dëgg rek mhm. su dellusiwaatoon ci at mii ñuy wax ak yéen euh, su ko su ko cent doon topp su fekkoon cent ñu ngi ko doon topp instant waxante dëgg parce que euh, euh, ba ñu ba mu génnee ba tey ñu ngi koy xaar ci dañ ne il est mort politique Karim Wade di bind vocal sax def ko bind la doon def ñu koy jàllale ci fi nga xamante ne moo di moo a WhatsApp mënatuñoo wax lu ñu gëm est que Karim moom parewul pour leeral moom situation P PDS gi war a mën a am candidat mais leeral parce que man dama nit ñoom ci seen biir xanaa dañu soxorante kenn xamul quoi ba ñoom waruñoo mën a am benn candidat boo xam ne dañ koy war a mën a teg. Abdoulaye am na raison parce que Abdoulaye boo ni gars yi gars yi fa gis nga Idrissa Seck fi mu jaar ak moom gis nga euh, ñoom Mour Diagne Fada bëgg au départ dafa xeex pour a jiite PDS Mour Diagne Fada Fada tey nii ku ko ku ko joxoon PDS fu muy mujjee du ko sànni fii. maa mhm. mu mhm. see dafa leen xamoon aussi parce que mhm. xam na ni leen téye woon ñoo xam ne vraiment c'est un c'est donc il avait compris que ni ñii jaru ñu leen jox parti parce que dañ koy jaay Macky Sall. Mhm. te loolu du lu ko gënal parce que il a été l'inspirateur le membre le premier membre fondateur de ce parti. Mhm. donc bëgguloon gars yi sacrifier ko te je crois que booy xool avec l'histoire avec le temps on se rend bien compte que Ablaye avait raison parce que regardez-moi ces gens-là qui l'ont trahi xool leen ñëpp ko bàyyi. Mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye li mu moo tax Macky Sall faites gaffe parce que euh, xamuloo Farba Ngom nan lay nga Farba mu meloon ak mhm. sa Farba bi moytu ko parce que il peut être extrêmement dangereux. ce sont des gens sont là que pour leurs propres intérêts ñu wax en 2024. quoi euh, avant il faut ñoo mhm. ñëw li nga xamante ne moo di mu mel ni mhm. jeu d'alliance euh, am na ah ci perspective yooyu donc ñuy rumbanaat comme quoi Khalifa Ababacar Sall ak kii di Ousmane Sonko mën nañoo def benn duo pour gagner li nga xamante ni moo di local yi en général. Euh, Momar Diongue qui est analyste politique il est très très bon mais mais fii je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord oui parce que parce que parce dina compliqué ndax xam nga lu tax ndax euh, dama koy yóbbu rek mu fàttaliku euh, li kii waxoon li daloon Sonko ak ak mbay Mbaye bi ñu bëggee def élection législative Sonko dafa Abdoul Mbaye dafa bëggoon ñu def benn liste commune ak yeneen i peut-être ay mouvement ak yooyu pour mu jiit Abdou Abdou Abdoul Mbaye ko Sonko Sonko Sonko dafa bañ dafa bañ parce que dafa xalaat ni Abdoul Mbaye n'est n'a pas une popularité un niveau de popularité tel que ni war ko mën a jiite moom mhm. Abdoul Mbaye aussi day ñëw taxaw ne moom du bëgg nekk ci ginnaawam mhm. donc pour ce cas là euh, Sall Sonko Sall Khalifa Sall Ousmane mhm. Sonko ça serait très difficile sauf dans dans dans par extraordinaire Khalifa Sall d'accord dem ci ginnaaw ah. Ousmane Sonko bu boobaa d'accord loolu alliance boobu mun na rafet te Sénégal dañu xam ne Khalifa Sall moom euh, am na un certain âge am na une a mm. a gisee sénégalais yi. waaye nag nii bu fekkee ni Khalifa Sall dafa bëgg a jiite Sonko euh, je ne pense pas que Sonko serait d'accord. Euh, dans quelque élection que ce soit mais Aliou Sow lii aussi est-ce que amul amul ay waxtaan déjà ñu tàmbali parce que quoi que l'on puisse dire aussi gis nañ euh, kii di Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany ñoom it kii woon nañ fi xëpp woon woon nañ fi yaa yaa yaa un mois trois semaines ah mais semaine dernière aussi gis nañ ñu nekk kii di Ousmane Sonko dem na seeti kii di Bougane Gueye Dany pour ñoom ñaar ñu waxtaan est-ce que nekkul ay négociation yoo xam ne aussi dañ koy def waaw xam nga négociation waaw mais loolu yëpp mën na nekk parce que kenn du nangu sama morom jiite la. mais foofu bu demee ba cappaandaw ga foofu nga xam nga gis nga Macky Sall mënoon na bañ a nekk élection en 2019. Mhm. Macky Sall mënoon na nekk président en 2019. lenn kese moo taxoon mu mu mënoon bañ a nekk loolu mooy bu ñëpp man je pense ci situation boobu xam nga chaque fois ma ne leen bu ci gàttal rek ni politique c'est du circonstanciel de lieu et de temps. Mhm. gis nga moment boobu noonu en 2019 moment boobu noonu su fekkoon dañu dajale ñoom ñëpp opposition bi. Mhm. ñoom Idrissa Seck ñëpp Mamadou Lamine Diallo entre autres tout le monde Mamadou Diop Decroix. daje autour je peux terminer Charles une 30 secondes pour terminer parce que sénégalais ñu ngi may déglu. wala su ma xet bon su ma xet Ah, allez on continue on avance non non je laisse tomber <laughs> eh, eh, waaw ok Aliou Sow yàlla baax na yow yow yow waaw di lay énervé mooy doxalinu réew mi doxalinu réew bi dafa doy waar ah boo ciy wax sax doo bëgg a doo bëgg a tax